bu leen faté abonné ci une chaîne YouTube. samsu TV jant bi à donner té activer cloche de notification bob ngéni sen ci un écran. samsu TV Samsu TV mooy suñu télé dee Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee Samsu TV mooy suñu télé Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV Samsu TV la ñuy bëgg ba aljana di ko bëggee waay ba aljana ba aljana asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk internetu Samsu TV soxna Binta moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu maam alxalifatul am Baye Serigne Xasan Seck xalifa général de Thiénaba ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam wéral cër yi ba naal yi mu naa la liggéeyal maamam yàlla defal ko kàttan gum ko àggalee ci barki Seydouna Muhammad waaye naka noonu la ñuy nuyoo umma islamique bi yëpp di leen ziyaara àq te di leen ko baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ci saxru ramadaanal mubaarak bi lépp liñ ci jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu te ful ko ci barke Seyduna Muhammad yàlla ba mu nekk suñu mujjug weeru koor yal nañ ko wooraat ay at yu bëree bëri ci barke alquranul karim waaye ñu di leen fàttali ni tey dañoo ñëw fii nii ci Yaraax Ah, di leen fàttali bis bi nga xamante ni moom la Serigne Maguette Diop Nabiye di amal le 9 avril ci fee ci Sorano muy guddi goo xamante ni guddi Seydouna Muhammad la waaye mu di ci delloo njukkal ki nga xamante moo di Serigne Madické Seck borom yàlla nee na waaye mu ci rendre hommage euh, suñu ay waajur yu baax yoo xamante ni ñoo fi nekkoon doon ay jàmbaar lool ci yoonu lislaam yàlla def ñu wuy ji seen boroom ñu di leen fàttaliku di leen ñaanal yàlla yërëm leen te jéggal leen ci barke Seydouna Muhammad waaye di ci Yaraax koñu Serigne Maguette Diop mi nga xamante ni moom mooy taxawal guddi gu mag googu di guddi Seydouna Muhammad waaye mu ci delloo jikkal Cheikh Madické Seck borom yàlla nee na di ci rendre hommage euh, suñu ay waajur yu baax yoo xamante ni ñoo fi nekkoon euh, nekkoon jàmbaar lool ci yoonu lislaam yàlla dogal ñu wuy ji seen boroom mu di leen fàtt ñu di leen fàttaliku di leen ñaanal yàlla mu yokk seen yërmande ak seen njëgal tàbbal leen ca aljana ya gën a kawe ci barke Seydouna Muhammad euh, ñoo Serigne Maguette Diop euh, nit ñi nag commencé nañoo ñëw jàng nañ fi alxuraan kee fi ay kaamir ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ji yàlla yërëm leen xare leen àjjana ñaan euh, ci réew mi yàlla def ci jàmm ci barkeb Seydina Mouhamad tey la samedi 9 avril 2022 kon mbokk yi ñu ngi leen di fàttali rek ni ñoo ngi fii ni Yara fi nga xamante ni moom moo di koñu Serigne Maguette Diop Nabiye muy waajal euh, bis bu guddi gu màgg boo xamante ni fan yi yëpp moom lañ doon waajal tey ñu agsi fi nag guddi di guddik Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mu ci delloo njukkal ki nga xamante ni moo di sëñ Madické Seck borom yàlla nee na waaye mu ci rendre hommage euh, suñu ay kilifa yu baax yoo xamante ni fi nekkoon di doonoon jàmbaar lool ci yoonu lislaam yàlla def ñu wuy ji seen borom ñu di leen fàttaliku tey di leen ñaanal yàlla mu yërëm leen xare leen àjjana ci barke Seydouna Muhammad waaye naka noonu ñu am fii suñu benn mbokk ginnaaw ba ko nuyoo ziyaara ko dalal ko dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi bi naa soxna si maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla baax a baax a baax. alhamdulilah tur bi. tur bi Baye Baye Mounabi la. Baye Mounabi. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla baax. a ah, bëggoon nañoo xam lan moo waral sa teewaay fii nii. waaw tey ji suñu teewaay fii dañu am kontaan bu baax a baax di leen nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen yéenay borom site bi ñu ñaan yàlla seen télé seen site bi bu dem ba nekk télé si barke yonent bi tey ki ngay xamante ne moo xewle mooy alaaji màgget Diop ñun ñu ànd suñu benn leader bu ñuy àndal ñu benn ko xam si ñaamu sëñ Babacar ñoom ñaar ñuy ay wóolare yu am solo ñuy ay xar ya nga xamante ne seen ànd rafetlu lañ ko fii ci yaraax ah tey jii Maguette moo woote fii ci yaraax ñi ñaan yàlla wooteem bi yàlla na ko yàgg a def tey mu nekk suñu deuxième édition ki koy def nag muy Maguette Diop ki mu koy defal jar na ko lool lool lool Serigne Madické Seck borom yàlla nee na ñu ñaan yàlla yal na yal yàlla yokk seen ndëgërlaay Maguette yàlla na ko yàlla jàppale ci biir li muy yëngu tey ku baax moo xewle soxna si ki xewle exemplaire la ci biir yaraax ki xewle amul këru diine yaraax sens interdit këru diine yëpp lay participer mën naa ne tey li mu li mu am nii yaatoo moo ko may màgget muy nit ku baax ñuy ñaan yàlla nag yàlla may gën ko yokk kàttan bésam bii ñu koy yàgg feete di ko yàgg fekkee en tout cas ñu leen wax ne lu ñu kontante la bi ñu gisee gan ñëw oto di jóge fu nekk di ñëw sagu yarax la te yarax dafa am ndam lu rëy rëy rëy te màgget moo fii indi ndam ni may wax ne ëttu cana ba ñu jàppale ñu suñu waajee bu baax a baax a baax a baax nabiyee bu baax la nabiye bu bëgg li muy def la kuy tiitaroo kër maamam la alaaji màgget kuy tiitaroo ëtt ëttu maam Amady Ndak sekk la fu mu nekku da koy wane te da koy tiitaroo waaw ñun ñoom dañuy am kontaante bu rëy rëy waaw kon euh, xam naa fii la dañuy teg fii suñu baaraam ba ci kanam tuuti ndax Serigne Pam Moutada mu ngi nii di dugg si asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Mouhamadou Mourtala moo egg si noonu macha allah ànd ak rakam sëriñ Abdourahmane Seck macha allah ak way juróom sëriñ Madické Seck macha allah ak borom lamiñ wu tax wi ngeen di dégg Khalifa Ndiaye ànd ak jarbaatu boppam mi yor oto bi sëriñ Madické Diop mi ngi nuyoo ci baat bi ni yàlla tànnal te mooy asalaamualeykum wa rahmatulahi taala ah, bu ko defee rek euh, yaakaar naa ni jamono ji ñuy àddu euh, presque dog jot na ñu ngi nekk ci wàccaay la comme niñ leen ko waxee woon ci bande d'annonce yi ndax euh, tey soraanoo lañ jëm di fa amal quatrième édition guddik Seydina Mohamed delloo njukkal Serigne Madické Seck boroom yàlla nee na waaye bala ñu fay dem dafa am lu ñuy programme fii muy ay bernde maanaam ay ndogu yoo xamante ne yu am solo la Euh, waaye yoo xamante ni bii wax dëgg yàlla macha allah moom lu ñu bañ a bañ bañ jël jël kuy lekk incha allah dinañ jëm dem jël image yi parce que itam euh, dafa nekk loo xamante ni bii lu am solo la pour wan ko ñi nga xamante ni bii yegg seeguñu waaye tamit euh, muy dafa bokk ci li nga xam ne dafay dundal événement waaye dafa bokk ci taaru koor kii ñu taxawal nii di sëñ Ndiaye yaakaar naa ni moom dina am mbégte bu baax a baax ci jiitu lu mel noonu sëñ Ndiaye boo ñu doon defal tey situation maanaam fan ngeen toll nii moment bi exact waaw waaw waaw yi maa ngi leen di gërëm bon di leen di leen nuyu di leen wax ni waajal waajal Sorano wu màgget bii dafa doon waajal boo xamante ni bis bu rëy la bis la boo xamante ni bis bu rëy la surtout ñu defate ko ci biir weeru koor ah biir weeru koor nag am ci am ci biir ay bernde ay bernde ndogu ah gan yi ñëw ak dëkkandoo yi ak am di jàmm yi bu heure ba jotee di leen defaral ay benn yoo xamante ni ay benn yu mucc ayib. waaw am na fi daal ay yoo xamante ni yëfi njóobeen yi daal moom. yëfi njaayeen yu baax daal am na saf sap waaw dina saf sap waaw dina saf sap ak suukar. Ah. am na fi daal ay mbir yoo xamante ni daal. Ah. bu ci nekk bokk ak boo sa morom. Ah. waaw ku ñëw ci biir baas bi daal tey moom moom di nga gis loo xamante ni daal moom ma soxal moom kon daal kon daal tànn sa bu la neex la daal waaw tànn sa bu la neex la tey kon baax na waaw yaa si liggéey bi duñ la tey lu yàgg dañ lay dañ lay bàyyi nga dem incha allah bu si kanamee rek eh, dinañ la woowaat fi waaw ah, bu ko defee rek eh, xam naa ni Euh, dañ leen doon présenté rek fi situation bi toll ndax sooba ba léegi yaakaar naa ne yéen ngi ànd ak Shamsu TV euh, ci euh, ki nga xamante ni moo di faatu bintu Thiaw ci présentation boo xamante ni bu am solo la dooree ko ci kaamil yi bi ñu jàngee kaamil ba noppi jàng xatmu bi waaye biñ si paree aussi itam dalal gan yi waaye itam kilifa gi nga xamante moo di Serigne Mourtada Seck di xalifa Serigne Madika Seck borom yàlla nee na yegg si ñu dalal ko ak ay délégation yu am solo Euh, dugg ci xéewal yi nag maanaam xéewlu moment bi moom yaakaar naa ne tey nit di ko laaj sax euh, dina xaw a doy waar Fat Bintou dañ lay jox micro bi rek euh, bu ko defee yow yow yaa ñuy yow yaa ñuy dugal ci biir. sëñ Mar Diop rek expliqué na leen fi ñu toll nii ñu ngi waajal ndogo yi kon dañuy daal di dugg ci biir rek laajte uh-huh. gaa yi ba xam waaw yi kon ñoo ko gisante soxna ñu ngi koy waa soxna Aram. ginnaaw ñu ko nuyoo ziar ko dañ koy laaj li nga xamante ni moom moo nekk ci taabul bi pour euh, lan ak lan moo fi am pour ku nekk ak li nga bëgg mu wax ñu ko leeralal ñu ko asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi doon waaj Sorano boobu ba léegi yàlla dogal nañ agsi nañ ci jàmm alhamdulilah donc ñu ngi ci phase ndogu yi donc ndogu yi moom am na loo bëgg am na café Touba am na café meew am na croissant donc am na lépp daal ku lim dangay jur mais lépp mi ngi ci au choix la lu waay soxla rek mën nga koo jël donc bis moom neex na ba pare donc yàlla na yàlla may ñu mot ñu àggaleeg jàmm ak salaam barke naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke borom bis bi yàlla yàlla mottali lépp merci beaucoup soxna Aram ñu ngi lay jaajëfal waa kon mbokk yi yéen a ko déggandoo fii nee na lu nekk am na fi waaye bëgg am na fi beñe yaa ngi fi mburu ngi fi am na lépp daal ba tey am nañ fi beneen mbokk boo xamante ni ñu ngi ko bi ginnaaw buñ ko nuyoo ziyaara ko dañ koy laaj moom digganteem ak uh, ki nga xamante ni moom moo di Serigne Maguette Diop Nabien lan la waaw salaamaaleykum wa rahmatulah waa Shamsu TV maa ngi leen nuyu bu baax di siyaar di jox seen waay wér di rafetlu seen teewaay di nuyu seigne mar bi ne ci bobu bi di nuyu yo soxna ci di wax ne taxawaay rafet na wa seigne Maguette mom yalla mo ñu bolé nak di WhatsApp lañ xamante woon ben groupe bu naan disa famille ndekete yo ñoo bok suñu Thiénaba ndax man suñu papa wa waa Thiénaba la waaw kóllëre go nag moy dox sama digënd ak mom muy rafet ba légui yalla def nak mu duggal ci estafa bu mag Goro ciow ak gaay ñu président Abdou ñu nekk ci di yëngu nak wa digënd bi dal ma sha allah rafet na torop ñaan yalla tamit mu yok ko wa li tam ñu yàgg ko téw ay at vraiment yeen ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm wa sam ci TV

baax jërëjëf kontaan nañu trop. ñu ngi lay toog ak uh, suñu benn papa ginnaaw ba ñu ko nuyoo ziyaara ko dañu koy laaj moom fan la bàyyeekoo papa ziyaar nañu. ñu lay ziyaara. Ah. bayang yaa ngi si jàmm ñu sant yàlla bu baax fan nga bàyyi ko ngi bàyyi ba dëkk bu wax kayre àll ci booru xombal ginnaaw ci kayre àll waaw ngir fekke si bis bi nga xamante ni sëriñ Maguette Diop moom taxawal muy di guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nan nga gisee bis bi bis bi ko gisee rek gu indil la rek ndax bis bu tol ci day nga li ci ci ay kenn mënu lim allah lepp lo ci def rek dañ koy ful bu dé dee benn euh, fulandik yalla mom yalla rek mo xam famu yam yalla yàlla ne na maay fulal wala yu daifu li ma ne fulal kuma neex kon nak bis bi dal ma ngi ñaan ci yàlla képp ku fi ñew yalla yalla fa ci saajo di ci contane ndax ki ko ma sha allah day nit ku bax man waajuram sax la gëna min papaam laa gën a miin moom sax miinante wuñu lool macha allah waaye nag euh, euh, maa ngi koy gis ci daje yi ci gàmm yi yooyu waaye daal macha allah bi ma déggee na moo koy wootee euh, damaa bég ci kontaan ci ñëw bi ndax maar mi nga xam ne mooy caméra dafa nekk sama lépp nekk sama goro. waaw nekk sama lépp euh, ba tax na fan yëpp mi ngi ma koy fàttali sax pour ma ñëw waaye daal li tax nu ñëw daal mooy ngir yàlla ak jëm yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom lañ koo féetale nga xam ne bisa moom dafa jar déplacé dem fu ne waaw waaw lépp loo xam ne dañ ko woote ngir yant bi salaatu salaam jar na jóg loolu daal mooy suñuy tànk moo nu tax a ñëw tey ngir bàkkeelu ci bis bi Euh, di ñaan ci yàlla daal yàlla na ko yàgg a taxawee ndax lii am na solo trop mënoon na koo def sax ci beneen weer waaye weer wi mu ko def dafa am solo weeru promotion la lépp lu ci waaye def dañ koy ful kon dafa jar déplacé man daal loolu mooy mooy li ma tax a jóg sàkku si barse ak ñaanal ko yàlla mu yàgg koo def mbir mi gën a jëm ca kanam amin na yàlla nangu ñaani waaye ñu di la laaj ndax di nga dem Sorano wala insha allah loolu ma tax a ñëw waaw <laughs> dem Sorano moo ma tax a ñëw incha allah moo moom a tax a ñëw waaw ndax mosuma koo fekk nag ndax ñaari at yi passé yëpp amul te yee ko jiitu ñëwuma woon moo tax bi ma ko déggee nag dañ koy def itam man damaa yàkkamti bu ñëw incha allah ñaan yàlla ñu yàgg koo fekk waaye dem Sorano daal moo a tax a ñëw tey. amiin papa yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bëree ñu ngi lay jaajëfal bu baax am nañ mbégte ak kontaan dagal nu mel nu mel nu ah, sant yàlla rek neex na macha allah. waaw eh, liñ ko li li ñuy ñaanal sunu waa ji daal. loo dogoo penku ba sow wala ah li ma ndogoo moom tey daa bari. penku ba sow li ma la. limal ma yëpp nañ ko dëxëñ. waaw déedéet limal ma yëpp ah, ma la yëpp. waaw li nga limal yi nga ndogoo yëpp. fii moom dara manqué wu fi. tàndarma mooy première bi. waaw ñu ngi teg fii macha allah lépp rek lépp luy teraanga rek. mburoo ngi fi leneen bagage yëpp a ngi fi. waaw neex na macha allah waaye da. ba léegi ba léegi li ma la woon li nga ndogoo yëpp de. waaw xam nga Guèye laa sant te sekkee ni laay bañ ñu am nuñ def ak man. mburoo ngi si de am na mburu waaw am na mburu waaw am na mayonnaise. am na café Touba. am na mayonnaise am na meew. am na tàndar lépp a ngi ci am na <laughs> ci biir laay dugg man ci biir laay dugg man damay kii eh, si loo ndogoo ah? sa mburu bi sa loo ci diw. ton. Ah? ton ak mayonnaise. ak mayonnaise. ñaata mburu libre wala kilo wala la kilo kilo ko da d'accord bax nako grand yow londo ko londo ko way deug la kay deug la kay wax londo ko la londo ko wa assalamu alaykum wa rahmatullah jarul ni londo ko rek la bëgg diñ joga ma mu ngi ni mburu lañ dogo wa bëgg nga wax mburu mi lu ci nekkon ci bir mburu lo mburu mom sokala mo ci nekkon sokala nga dekk wa sokala nga ndoko wa mom la ko la ak lan soxlaa la ndogo moom kese moo ci nekk ci kese kese. ak café. lekkoo tàndar. waaw tàndar moom ñëpp naa benn tàndar. naanoo naanoo café. Ah, naan naa café. mburu bi amul amul amul amul mayonnaise. amul mayonnaise. ah d'accord kon baax kon baax na kan man mburu. mburu ak lan. mburu ak ton. mburu Burokto kene kira Burokto ah. Leko tandar. Anke tandar ah. ma. Nan nga wala? Nan nan kafe wa. Ah, ah li nan ci kafe gi beureen. nan kafe gi wa bari. Lan mo dess nak? Lu dess. Dem Sorano toj. Waye Sorano ak dal kay toj day ñi war pass bari ko. Lu ngeen lu ngeen lu ngeen wajal yen lan ngeen wajal? Li ñu wajal surprise dañ koy def bari na torop ma sha Allah. Surprise dañ koy def. Yaay bo yow lo ndogo? <laughs> Ah? Lo ndogo. mburu jarul nuyoo de loo ndoxoo rek laa bëgg. mburu ak café. ah ñoom tàndarma. ton. ton waaw. ñaar. ah daa nekkul ma. damaa ñu ne benn wala ñett wala juróom wala juróom-ñaar yow nga doogoo ñaar. ah daa nekk lu ma préféré. da bi ngay doog xam waaw. Eh, soxna si loolu ndogo yow itam wax ma loolu ndogo. man nguroog ton laa ndogo. nguroog ton ndogo. lu tax jigéen ñi bëgg ton. a ah, saf si lekk moo gën a saf si lekk yi. Ah? Ah, moo gën a saf si lekk yi man dama gis jigéen ñi ñi nga laaj ñëpp ton lañ ndogo. xool moo neex rek ki ko togg moo mën togg ah. te ñi ngi borom bis bi nag bi mu si ñàkk ren bu déwé ne yàlla am lu café nga naan wala café meew wala meew café laa naan café Touba laa naan léegi nag la moo des ah ñu pare ñu préparé dem ànd ak moom incha allah baax na baax na kan lay dem waaye ci kan laay dem waaye ayow ñu waajal waxtu wi julli ñu waajal waxtu wi julli waaw julli jot na maar affaire bi macha allah. Mor ah, Mbaye da ngaa so ah? kooku da dafay julli dafay julli moo tax. ah kenn jàmbaar ji moom pareegul yow daa mel ñetti daa mel ñetti kaas kii de. ma sax. defe naa defe naa. man na mën naa kii si beneen bi. waaw mën ngaa kii hmm. mën ngaa laa mën la sax. waaw. lépp baax na. waaw damaa ndogoo wut. ah ndogoo ko. waaw yow wax ma wax ma li nga ndogoo yow lan. li ma ndogoo ko yaa ngi jàkkaarloo moom. xaw ma ko. jàkkaarloo moom ndax li jot dugg laa wax. loolu laa xam mi ngi nii kay. li jot dugg kay ngeen gisatoo ko. li jot dugg jeexagul. daa bëri moo tax jeexagul. waay toj na fi. ginnaaw bi toj na fi waay. Mor Faye da ngaa sori. baal leen ma baal leen ma baal leen ma ah ma ñëw yaay booy yaay booy maa ngi lay nuyu de. yaay booy nuyu naa la gan la maa ngi lay. waaw jàpp si rek yaay booy. yaay booy foo jógee. Louga laa jógee maa Louga nga jógee. waaw kër suñu maam kii Fall. Gora Mbengue Fall Gora Mbengue Fall. waaw waaw moom tey dafa bokk si ñuy rendre hommage. dëgg la dëgg la kay. waaw yaay ndongo ma noog ndongo ma noog. waaw damay bëgg a jox ko mu doon. waaw dee ma loo ndogo dee ma loo ndogo dee ma ko rek dee ma loo. waaw li nga ndogo danga ma koy dee rek meew laa ndogu meew lekk naa laa ndogu. waaw. ak euh, tàndarma. waaw. ak euh, café stick. waaw. ak mburu kon. waaw. ak beñe. waaw ak mburu ak euh, pain au lait. yaa ngi doon daal mais yow noobul nga de. <laughs> abonné ci seen seen youtube samsu tv jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen di seen ci seen écran samsul huda ahmad samsul huda ahmad samsu tv masih suñu Samsung TV, masin tele TV, masin Samsung TV, TV, TV, nice Samsung Samsung Samsung TV. ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bege ba aljana di ko bege waay aljana